Courant eh Events, le numéro 1 de l'événementiel, modèle soit au devant de la scène un gala méga de lutte. Balla Gaye 2, le de Guédiawaye, mooy jàkkaarloo ak Tapha le géant du Baol, un choc de gladiateurs pour la couronne de l'empereur. Drapeau Pape Ibrahima Diagne Bassirou. Grand Serigne de Dakar Al Bourakh Events fas yéene boucler la saison dans l'apothéose ak ay ngandi grand combat ci benn takkusaan soq Boy Day ak Mama Lamine Blindé a ak Zambla Bébé Saloum war a jàmmarloo ak Jacob Baldé Malaw Seras mooy dajak Ndandi Fall ordinateur war a ak Ndul général bu war a daje ak Boy Malika Kirikou waxti daje ak Ardo Viengolo watti jàkkaarloo ak Tafatine bu jàmm gën waaye nag cet événement grandiose uniquement sur pay-per-view lay doon benn télévision du ko wone bu ngeen ko bëggee seetaan da ngeen ci dem di wido point tv wala seen affiche point com 10 000 francs ngeen di jëndee code bu dee Sénégal 19 euros 99 au niveau de la diaspora date à retenir 21 juillet 2024 arène dimanche ak Albourakh Events jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar mbooleem kuy suivre Gaston Production tey ñoo ngi fii ci arène nationale muy mercredi tam xarit ba ca suba sa Matar ci yow la ñu ubbee mais dañ lay féliciter parce que ñaari mbër yi nga boole tey mësuñoo bëre grand combat te tey mbër promoteur yàgg na koo fay ay millions te lii ma gis macha allah mosuma koo gis maa ngi lay nuy nuyu baax taalibe Seex. waaw Modou Anta maa ngi lay fay bu baax di nuyu mbokki téléspectateurs yi di nuyu mbokki internautes yi rawatina ñi suivre Gaston production am Gaston production rek sunu site la ndax sunu nijaay Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla xaare àjjana sunu nijaay la di sunu mbokkum jàmbur daan ànd ak samay nijaay ak sama ñoom tante ñuy wax rek ñu sant yàlla bu baax di di leen ñaanal ci at mu bees mi at jullit yi nga xam ne maa ngi nii jugee ci awoon nekk sunu sëriñ ba daan defee alhaji Abdou Aziz Al Amin daan woote le lendemain de la Tamxarit ziar Ashura ma bokk ci ay élément am ba ziar bay ñëw nii ñu ñaanal senegal gi yëpp di ñaanal njiitu réew mi ak membre gouvernement bi yëpp yàlla oyofal yan bi waaw Ndiaye production nag comme ni ñu ko amee habitude di ko def yaakaar naa ne Fallou Ndiaye ni woon naa ko combat bi taxawal ko à tout prix nan la jaral donte délai bi ñu ko jël gàtt na date bi tamit àllarba bala nekk feet bi ñu ko taxawalee yàggul waaye toujours doon ci am doon am ay doute mais lu mu mën a wax ma ne ko Ndiaye Siteu bu anti ak Ama bu yaraax soo bëggee làmb ju neex moom ngay taxawal mooy li ma wax ci signature ba nee naa ñun Ndiaye production bi nga taxawal combat cent millions wala cent et quelques millions boo ñëwee ci arène nationale ñu mën la fuuf. dama lay dog lan moo tax nga doon insé lool maa ngi lay dégg nga koy wax ci lan la da xam ginnaaw xale bi ginnaaw xale yi wala. non dama xam ginnaaw xale yi dèjà non seulement grand combat bi mais Ndiaye production combat yu ndaw am na mbër yoo xam ne booy xool ay jinne bu ndaw ay Tafa Maada ay Jules Diène ay yeneen yeneen ñooñu suñu produit lañu toujours ñu ngi bëre ci Ndiaye production te xam na li ñu mën a apporter boo amee grand combat bu neex boo leen ci sa seere da nga am dara ndax booy ko yaa ngi ni xale yi bëri guñ grand combat mais yaa ngi fàttali stade Iba Mar bi ñu koy tëj keroog sama bi stade bi daanu Ibou Afia ak Jeex Jàmm ñoom ñaar kenn mosu cee bëri grand spécial kenn mosu cee bëri spécial ñun ñu bëri lool leen grand combat keroog ci la Diop de bëri combat spécial gis nga ni na lamb jamee doon ba aran ba stade Iba Mar daanu ci lañ ko tëjee ba léegi kon ñi li ñuy def xam nañ ko bu baax Ndiaye production bu ko yàlla mayee kattan ak moyens yi mu yi gaa yor mu yor ko am ay sponsor yu ko jàppale yàlla xam na ni tëggandoowul ak kenn bokkul ak kenn làmb Matar kontaan naa ci yow mais sañse bi rafet na de. waaw non dañu demoon nag. sañseeti nga. waaw bu ñu dem Tivaouane nag il faut ñu def rek yëfu taalibe Cheikh. waaw laal sunu bu blanc rek noir et blanc. jàmm nga woon. ba waa jàmm rek comme dañoo demoon daal seeti Tivaouane sunu wasila moo daan woote lendemain tamxarit al amin ñu dem ñu def yëfu taalibe Cheikh rek jaajëf. ana borom soom. waa Diop mi ngi fi borom soom mi di ko gis léegi. incha dina ñëw yëngal ànd ak waa yëmbal ñëw présenté wu incha allah diggante ak Mor Kankan. Khalil. fee laa bëgg a commencé essane ñi ngi ci troisième combat am nañu ñibbi parce que comme li may wax Fallou rek demal xalil nee naa na ko yàlla defal cat rek defal ko jàmm parce que promoteur la boo xam ne wax dëgg yàlla bi mu duggee ci làmb ba tey ànd ak ñi muy liggéeyal muy Matar Ndiaye Grand Yande Tafa Mbeng mu Moussafa boo limee da ngay juum Fallou El Capo ba tey liggéey bi mi ngi rafet boo gisee tey la mercredi tam xarit ba ci suba sa te xalil lii bari na làmb yu mu gën a neex bari na làmb yu mu gën a fees parce que fay na nit ay grand combat ay millions te andiwuñu lii boo jógee ci koñ bi yéegal ma ci kaw te tey la mercredi nga yéegal ma ci kaw nga dem boo paree nga jëlal ma beneen koñ bi dama bëgg nga won ma lars gaa yi xam stade bi fi fees ak fi feesut merci lii laa bëgg parce que xalil ñaar ñi bëre grand combat tey mësuñoo bëre grand combat sa supporter ni ñu foofu laay ñëw foofu laay ñëw gis nga demal ma ci kaw te sori na ci kaw gi lool gis nga gis nga kon nag équipe bu Ndiaye production duñ def lu dul di leen féliciter wax dëgg yàlla lii moom yombul boo pare ñëwal sama côté nga jël koñ ba dama laa bëgg woon stade bi tey ni mu mel te troisième combat mi ngi daw demal comme ni nga ko defee woon gis nga stade bi am na ñoo xamante bi nii daan nan ñibbi am na ñoo xam ne daanu nan ñibbi troisième combat mi ngi ci digg géew bi gis nga stade bi ni mu mel boo paree nga yéegalaat ma ci kaw lii mooy wane ne ah yàlla du fay yàlla du fay jëf bàyyi wax wax dëgg yàlla le gamer de la lutte sénégalaise wala le de promoteur macha allah waneeti na boppam bu la neexee demal ci kaw bala ñoo dem ci Fallou Ndiaye tey ñu won leen stade bi li fi nekk yëpp xalil la taaka ñuy dem ci ñaari cummikaayu mbëri won leen ko Ama bu Yarax mooy tuus jaajëf Khalil. Gaston Production la. yéen ñaar fii ak peel la. félicité. waa merci beaucoup. la Lamine Sène. waaw Lamine Sène l'international. yéen ñaar ku duma moroomam. waaw fekk trois rounds la waroon a xeex. trois rounds la waroon a xeex ñu xeex deux rounds yi cinq minutes cinq minutes beneen round bi moom bëtam bi di nàcc. mënatul a continuer mu bàyyi. léegi lan moo tax arbitre bi bëgg def làmb ji euh, affaire bi match nul te yaa gagné. waaw juste ci condition yi ma wax ñu ne professionnel la wax dëgg yàlla tab bañ ko wax bañ ko joxe sama avance moom mënul def plus que 37 combats man ma def benn combat man amaguma combat ñu jox ma ko dañ ko négocier moom paasal ko daggal ko bii ñëw ba fii gars yi ne nañ suñu sama loxo genre humiliation lay doon xam nga Sénégal rek la. ma may leen loolu mais ñëpp boo xam ne ni maa gagné looloo ci am solo. léegi kickboxing kan nga soxla. waa kickboxing ay rëg-rëg ñu ngi fi bu dee senegal rëg-rëg laa fi dese bu dee fële ki ku aay kooku nu mu tudd kooku tamit naaw rek te mu dóor nga dem dans le coma. nga nga leen nga ale nga leen ñooñu laa soxla nañ ma jox ñooñu. rëg-rëg nga wax de rëg-rëg. yow waxoo buuse nga naan rëg-rëg. Ouzin ñu dóor ko mu naaw moom ñëw na wala gisaguma ko ba tey pour man sax naaw dem ndax dañ koo door mu naaw. mais ñi nga buuse. ay buuse man buuse soxlawu ma ko. non buuse soxlawu ma ko buuse. rek la lay def ta man gañ jël laay def. buuse gañ foo lay def ta man gañ jël laay def buuse kii da koo dóor mu naaw man bu ma ko dóoree barki sëñ naam xamet dina mel ni maanaam manque bu toj xam nga manque yooyu xale yi di fooye nga ëf ko moom kii dóor ko day tas. ay Malick Niang waaw ay Malick Niang ñoo ñëpp combat su ma sañoon ñun du ñun sénégalais yi am nañ benn groupe boo xam ne euh, ñun ñoo ci nekk képp kuy def MMA Sénégal nga nekk Sénégal nga nekk bitim réew ñu def nañ benn collaboration ñoom euh, Bombardier Malick Niang Reug Reug ñëpp a ngi ci biir groupe boobu ñu ngi waxtaan bu ma sañoon nag wax dëgg yàlla ñu ngi may démarché pour ma génn. je suis paré man pare naa pour génn su ma génnee nag ñaanu ma yàlla dajeeg sama moromu euh, sama doomu dëkk foofu nañ ma jox ci tubaab yi xees yi man man fi mu ne dama ak booyu xees yi tubaab buñ ma ci jox dinaa ko diw beurre ba mu tooy lekk ko ba mu jeex tàkk. sans xorom nag sans xorom. ok Sénégal ñan nga fi war a bëreel parce que tamit li nga fi def sa benn morom defu ko fi ay victoire yu bëri nga tegle ba am benn defet lan ngay wax. waaw man bëri naa ay adversaires yu ma war a bëreel ay guy gi amet ah, amet dem ah ay ay ama neex ah ñooñu ñëpp samay adversaire lañ. parce que na ay guy gi. waaw guy gi guy gi maa ngi moom ak ñeneen ak ñeneen jamteeri ñëpp ñëpp dañ ko fee bàyyi man juste man damaa bëgg a gaañu ma gaañu mu dente ba xam nga ne fi gën wàllu musiba musiba ankee moo ko gënal problème rek laa bëgg sama àdduna problème laay wër. nee naa la problème fu ma ko fekk dama ciy def dama koy dama koy boole dama ne la problème fu ma ko fekk dama ciy def meew ak suukar xóoyal ko ba mu neex man naan ko man problème laay topp yaa ngi dégg bu fekkee jamteer yi nee na nit ñi dañ koo ragal na ñëw ma ragalu ma ko faalewu ma te bu ñëwee naa ko nokk ba mu duul. bu am problème de. amul problème man problème laay topp nee naa la gën wàllu musiba musiba entier moom ko gën a lii problème bi. ndigal ndigal. ndigal loolu lamb ju neex billaay bañu ma kenn. man lamb laay def barki alxuraanu karim amul benn mbër boo xam ne maa ngi lay xaw a bàyyi xel. wës jàmbaar. kooku tapet la. non la. du ragal na nee na man du bëre comédien man comédien laa bu ma jëlee comédien bi noq. barki Serigne Saliou. mi ngi ne la de mi la. moom dafa yaakaar lamb ay sañ la du loolu ñun dañuy liggéey te bu duggee ci man ma noq. na ñu lay fay la nuyaat di la jox sa wàccuwaay bu mu mel la ñu waxante woon keroog place ba tey confirmé nga ko nii la gars yi wuysoo mu nekk mercredi bu ma juumul mosoo koo tëgg wala gëj nga koo tëgg tey lan ngay wax. waaw mais sant yàlla rek mu doon daaw di leen nuyu yéen it di leen félicité ndax ñoo bokk liggéey bi yow suñu rakk nga suñu frère nga lépp lu ñuy def sa loxo gi ci kon yaakaar naa bu tëggee lamb mel ni dañuy santaat yàlla rek sant ñi ci jàpp ñëpp ndax duñ muurante ñun sant dong moo ñu war nag wóor na yàlla bu jooli jeexee mbala yi jeex sant rek moo ñu ndax tey defaluñu nit ñi loo xam ne bu ñu dëggee ñu kon tey bu ñu dëggee nit ñi wuyu si dañuy sant yàlla ndax tey muy yow muy man ñëpp kenn xaaru woon lii mais nag liggéey la bu am solo bam ne ni Ibou Ndiaye position ci liggéey ku mel ni Madar Ndiaye ak staff yëpp kon ñoom dañ leen sant di sant ku mel ni Madar Ndiaye di ko gërëm bu baax ndax vraiment suñu agsee moom la bay na ci waaram di ci liggéey liggéey boo xam ne bu mocc ayib la ok dama jël Madar léegi mu ne jooyu leen waaye dàqu leen sponsor mais bu ngeen ko amoon ngeen xam ne bokk ngeen ci ñi man ci làmb ji da nga koy confirmer woon. waaw non loolu wax nañ ko ne ñun bu ñu amoon ñeenti sponsor yu dëgër rek ñeenti sponsor kon wax ji du bari de woo na yàlla ñëpp ay réglé ndax làmb ji suñu loxo lañ koy téye yàlla xam na ko mais nag ñu ngi liggéey ndànk-ndànk dina ñëw duñu yàkkamti waruñoo gaawtu ndax ay ndaw lañu te ndaw du yàkkamti du gaawtu li li am solo rek mooy nañu liggéey li ñu war a liggéey ba pare jublu ci affaire sponsor bi ndax combat euh, Boy Diop tey ak euh, Mor combat la boo xam ne nii il faut ñu liggéey ci bu baax a baax ndax budget la boo xam ne nii am na benn niveau mu toll kon day il faut ñu liggéey ci côté sponsoring ba nga xam ne nii incha bu ñëwee rek ñëpp seen xol na seet danañ kontaan. daal yaa ngi confirmé le de le gamer de de la lutte. waaw non de la ndax moo tax nga ngi moo tax coow li nga dégg coow li noonu waaw moo lay ñëw moo tax coow li ba la mu daan ñu gën a mën a liggéey pour lamb jëm kanam ndax lépp intérêt lamb rek la am. gis Ada Fass yaa ko njëkk a génn jox ko grand combat jeex jaamu Ibou Ave yaa leen njëkk a génn grand combat tey Diop 2 yaa ko njëkk a génn grand combat tey ñaari booy yi xam naa ne am na looy tànte ci ñoom yaa leen njëkk a génn grand combat. waaw mais xam nga yow li ñuy tànte réussir nañ ko ndax ku xam ñaari booy yi gis tey forte mobilisation bi ñu nga xam ne pare nañu tey vraiment comme ni ko waxoon rek dañuy pare pour bu fekkee ñu dugal leen ci Mor Kankang ak Boy Diop 2 ndax dañoo bëgg arène nationale wane fi lu am solo wane fi liggéey bu am ne tamit Sénégal yi nañu seen bopp kontaan naa si maa gën a kontaan